ma wax loo ba di ko wéy guddi gi yëpp doon nalaw su ah Wednesday Tuesday jotee ngir Wednesday classe kon da gis ne loolu noonu am na lu bari lu mu def si yow mm-hmm. soo dooree di jóg fajar depuis time xaleel googu mm-hmm. di ko miin di ko dem di dem di dem ba mag soo magee rek mun a eewu fajar soo miinee eewu fajar nag miin di jox magi cër di ragal yar soo magee rek yow tamit sa doom di nga ko yar noo ko war a yare du docteur wax fii peer influence soo moro dañoo ñëwee We're being a finty boy. No, <laughs> yeah, honestly, I have the moment assignment. You know what? They are not, no, no, no. Yo, when do do doo tux cigarette. Ah. doo yee guru. xamuloo àddina kon yow yow yow jigéen nga xam. <laughs> ma wante leen leen rek laa leen di wax yàlla bu mu bindee doomi aadama waxul ne góor ak ataaya walla góor ak cigarette wala góor ak taay mu ne góor ak jigéen dafa am noo war a yóbbee jigéen. that's very simple su su ma loolu mooy suma respond su leen waxee ñu ne daal jeex na amatee la side di find <laughs> wante man kenn du ma mën a influence because man xam naa ne man suma yaay lu mu si man at the age of five months la ma operate man so suma yaay laa moo nekk suma papa moo nekk suma yaay tey su kooku dama ko war a fee dama war a takk suma digga bi boo ko yaay am ticket bi nga dem mak because man suma yaay munuma mako faire nako yalla def su nekké every dama ko jox million billahi after ma after suma operation bi l'hôpital bu nekk la fi tedd i can remember banjun hospital bi ñaari personne ñoy fanan ci ben la sa wajur ñoy fanan ci tok suma taxawé sen kanam di jangalé wa wax né gayné bu len jël sé ko asar modèle tek sé asan as an example because man paréwuma children at the age of under 15 years are all addict, addictors. They don't even start us. Then addict in it under 15 years. You Yana say the model wonder. Anani wajuri under 15 years going to club. Home train B is minus zero percent. Johnson bought them, they are gate of They are smoking, near attire. tagis jaha, at primary primary three la moneka drop out foofu mo hame xamee la mooy am bachelors everything primary three nga drop out. ah. yow nag boo dégg nga dem school. boy si boo ñëwee ñu na ah boo yow da nga bari problème tija xam lu tax sax school di am ñi den sona si jànga yow ndégal di janga rek ñi den sona si janga no problem. if you said today I don't care. haaɗay noon haaɗay noon wilsande fami noon so smoke be it's spoiling my society i'm feeling it and it's man mi yaroo ak yaay kese ma mën a xam nu maa demee ci àdduna bi ana ñu nga xam ne ñu ngi am yaay ak papa yaaxu waral loolu dafa ñu ne ñaari ñoo war a ragle doom si biir kër. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mariama Diallo from the balance. topic bu ñu jël tey is very important am na solo torop te wax nañ fi yu bëri yoo xam ne am na solo yoo xam ne xale yi war nañ koo bàyyi xel parce que ñun la nekk di affect te tamit mag yi ak waajur yi ñoo xam ne ñoom ñoo ñu amee war nañ ko bàyyi xel bu baax parce que ñun nuñ munti mel ñoom la 75 percent of the billion daal si ñoom lañ koo teg daal. dégg nañ fi ñu bëri ñuy blame parents yi ñii di blame teachers yi ñii di blame xale waaye wax nañ fi lu am solo mooy comme xale ñetti place la am mooy kër gi si mbeeda bi ak school bi waaye suñu waxee yi fi yar comme yar si kër lay commencé parce que Englishman sax wax na ko charity begins at home te suñu waxee yi fi drogue dañoo gis ne comme waajur yu bëri si kër yi ñoom si seen bopp dañoo jëfandikoo drogue bi so waajur bi su boppam for exemple su nekkee sa papa moo nekk di tux moo nekk di tux tey for exemple wala cigarette mu ñëw yóoni la pour nga dem jëli ko lu mu la nekk di la jàngal mu ngi laa woon ne lii is there's nothing wrong in this mm-hmm. mu laa woon ne lii yoon bu baax la daal léegi yow nga dem jëndi ko foofu ngaa ñëwee di ko gis mu koo tux ba mu koy tux sa kanam di def yooyu noonu yow at the end of the soo ñëwee nga tux moom amul benn right wala comme du mun a taxaw di la wax ne moom daf laa ko que moom si boppam moo koo def si moom nga ko gisee te bari na fi nekkul tuut kese da nga gis wajur mu lepp comme bëccëg for example mu ñew ci kër bi pour lacc ko ak yoyu mu ne ko ne mu ne xalé bi ne demal wax ko ne nekuma fi lu mo def mu ngi jangal xalé bi nu ñoo fenee at the end of the day mu ne man dafa tré pour yar domam bi pour bu pour bu fen wala pour bu def anything like that te fekk mom ci bopam nekkul di staff as example ou di staff as role model wax nañ tamit lu important mo nekk ci school yi teachers yi di jangal xalé teacher dañ leen fay pour ñu jangal xalé te most of the teacher yi ñu dee nekk si school yi comme ñoom seen seen business is ñu dem class teach jeex na ñu dem am na ñoo xam ne dañ ko dee wax sax I am paid to teach and even if it is one person inside the class I will teach and go out ñoom dañ leen fay pour ñu teach te su nekkee benn nit rek a nekk si bi sax ñoom dañoo dugga ñu teach ba pare ñu génn ñoom faalewuñ loolu lan la nekk di wane comme ñoom de pour ñu deliver rek moo leen fa yóbbu waaye ñoom di are not concerned about xale ñuy ñëw wala ñu ñàkkaa ñëw ko fi wax sax foog naa sama papa mu ne comme xale yi comme am na yenn jikko yoo xam ne ñu ngi koo amee comme teachers yi they are not concerned daal ñoom xelaatuñ ndax xale bi nii la war a demee wala déedéet ñoom dañoo ñëw ñu tic rek ñu dem soo xale bi su defee yoo xam ne dafa rong ñoom dañoo jël seen dañoo punish rek out of their anger waaye nekkoon ne dañoo tere pour rek ko ñaata teachers ñoo nekkee di def suma anti bii nii lu mu nekk di def comme xale soo gisee ne mu ngee def dara comme nga nekk teacher parce que teacher ñoo nekk suñ second parent si si school bi ñoom ñoo fa nekk suñu waajur léegi ñoom suñ fa nekkee dañu war a observe waaye ñaata teachers ñoo dee toog di observe seen students yi li ñoo def teacher for example xale su nekké di def diko yo xamné mo nak wala di def naka sudul non si classe lu ñu def mooy ñu daxal pour nga gën si biti ñu né lolu ñu la yar ci ko lolu yow nga daxalé bi pour mu gën su dafa dem ci biti di taxawal fofu la mo démé bi mitante ak ño xamné experience lañ wala ñenen it's like you are creating the medium yang ko indil yoon bi yaa ngi foog ko yar way yang ko indil yoon bi pour mu mëna def yoyu non yépp pour mu mëna dem di involve in drugs or whatsoever it is ñun tamit halé ñu ngi wax parents yi way tamit am nañ lii am na jéego si si blame bi parce que comme soo seetloo waajur yu bëri def nañ luñ mbur pour ñu yar xale yi waaye peer influence is another thing parce que da ngaa dem si school yi xale comme da nga war a tànn koy àndal te sooy taana da ngaa taana xarit bu baax waaye nga jël ñoo xam ne baaxuñ ngay àndaa ñoom at the end of the day even soo yar buñ la munti jox kër sax soo ñëwee soo laagalee rek dañ laa yóbbuwaale te suñ la yóbbuwaalee rek moo nekk nga dem àndaa ñoom di def yoo xam ne sa waajur yi si kër yi mun nañ koo ñàkk xam parce que yu bëri xale yaa ngi ko def si mbedd bi te seen waajur yi xamuñ ko soo bëri na comme suma papa Babacar oncle Babacar Thiam nu mu ko waxee rek ñu ne neen la te balaa ñoo joxoñ si biti wala di joxoñ keneen nañ joxoñ suñ boppa parce que su ñun la war a commencer te it's a collective responsibility xale bi am na responsibility suñ la joxee sa right as a child you make sure you do what is expected of you que ñu ne to whom much is given much is expected yow you have to do what is expected of waaye parents yi tamit dañ war a xam nu ñoo yaree xale yi comme suma anti bi nu mu ko waxee dama kontaan sax mu ko dégg mu ne kansuleen comme yar dafa am nu ñoo yaree nit xale da ko war a xam daal soo amee doom da nga koo xam te xam noo koo yaree yar is in different ways noko defé defee way la nga yar ko yar bo xamné du yaaxa school si tamit teachers yi ñu make sure ñu do what is expected of them ñu def sen responsibility ñu try yar halé ma ngi nuyu ñep ñu fi euh di gërëm ñep ñu xamné tamit wax nañ fi sen wax yi rafet na trop té xamna dina dimbali halé yi xam nga mën nañ wax né during school hours la way amna na yeneen yi after school hours moy story time Amna school yo xamne dafa am backyard te bag baagiyaat yooyu maa ngi laa wax ne xale yu bëri foofu la ñoo demee study foofu la ñuy toog ubbi seen book si di study waaye duma la wax ne study rek lañoo ñëw foofu la suñ study ba si kanam dañoo tuuf dañoo jëfandoo drogue bi te loolu dafa nekk loo xam ne ne bëri na sax mosab dem mun nañu wax ne dañoo dem study enu seen baag si waaye duñ dem study xam nga ne dew will go there pour dem use drugs loolu tamit dañ ko war a gën a bàyyi xel waaye man fu may gën a waxee dafa technique because man tamit ah, su ñoo wax si xale man si xale yi laa nekk di story fan yi ah, maa ngay def some survey about xale yi ah, ñun ñëpp dañu war a fàttaliku ne tey ji am na xale yoo xam ne day under age te ñi ngay dem si club bi te loolu dafa am solo pour ñu bàyyi ko xel tey doo mën a ràññee xale bi ndax 14 years la am ndax 18 years la am because tey dëgg la ñu ñëpp ñu ngi wax ay xale ay xale waaye soo laajee xale yi dañu ne ñun duñ xale. xale amatul léegi so mun nañ fi toog wax xale xale waaye suñ ko xoolee si biir xale lu ñu xam tey macha allah kon tey xale amut soo dafa important moo tax ma doon def benn sobe waaye sobe bi dama ko jaaree si xel comme am na ko fi wax mi ne xel xam nga soo ne mind mind